acca jërë ngeen jëf euh, yéen suñu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di delloowaat ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaante ak mbégte bu baax a baax nag comme ni ma ko faral di def ak kilifa yëpp tey ñu fas yéene jàkkaarloog benn kilifa di kàngam nga xam ne kenn du ko présenté te ci biir site bi àdduna wërëgal këpp ñoo ko safoo mu di saltige ndooy tey nag fas yéene ñoo waxtaan ci xam-xam yaatal ci waaye xew-xewu jamono dañ ko fàtte mu di actualité mhm. rawatina rey bi ak agression bu bëri bi waaye it réew mi am na lum ci gis lu doy waar na ngeen bàyyi am na lum ci bëgg wax mais am na lum ci bëgg a lu ci mel ni sarax mhm. laata ma ñëw sama biir programme saltige ndooy di nuyoo mbokk askan bi aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim qaala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli sëñ bi ñu ngi leen di ziar di ziar mbokku internet yi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ba ñu mën a leeral li ñu bëgg a leeral tarkal la jërëjëf saltige ndoy ñu lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw sënio set yooyu tànn ak dal ñu ngi ciy kontaan bu baax dinaan la dalal jàmm comme ni ma koy def ak say naataango yëpp noonu laa fas yéene ñu doxale ko wéyli ni waaye lépp dañ koy wér ci xam-xam su ma nee mm-hmm. xam-xam mm-hmm. bëgg naa ñu waxtaane ci ñaari pàcc lii dama koy jël yóbbu ko ci ñaan bi nga xam ne yaa ngi koy def di ciy def résultat kenn waranteetu ko mm-hmm. waaye dinaa dellusiwaat ci pàcc bi nga xam ne kenn naatable ko yàlla am na loo xam ne dégg na la ci te yaa ngi ciy def loo xam ne preuve leer nañ la. xew-xew jamono wax naa leen ko dinañ ci bu baax a baax. acca te daam foo xam ne foofu lan na moon ñu tàmbalee. mu di ci feebar du ma nee feebar nag dama ñëw ci impuissance sexuelle mu di ngóora néew kàttan. li ci ndaw ñi la sonal. vingt cinq vingt cinq ans jàpp trente ans ba trente cinq ans. lan nga leen di baax ci néew kàttan. dëgg la waa xam nga wàllu néew kàttan damay faral di wax ni di koy joxe bari na ah. parce que néew kàttan bu dee ci wàllu zahir lekk gu bon gi. dina ko faral di di joxe. Ah. maanaam lekk gu bon gi. Mhm. ñaaka def sport. Ah. ndaw yu yaafus. Mhm. dina ko faral di joxe damay faral jox wax ni sport ñëpp war a def. Mhm. muy bi muy ndaw si muy ndaw si ah. muy keneen ak keneen. wër ndaw. ko war a def beneen bi ci des tamit dee ci wallu baatin takk xala. dina ko faral di di def damay faral jox ni am na ci xeetu liggéey yoo xam si dañ koy liggéey ci mbott. genre fas lay doon am na benn euh, saaru alquran boo xam si saar bu gàtt la. nit ñi dañ koy faral di juutal léegi aaya bu wax. ni um naa awra diw léegi bu ñu fas ko ci mbott lañ koy def suul ci bàmmeel feeg néew boobu amul kàttan nit kooku du am kàttan hmm. loolu ah, na waar nit hmm. faral def am na ci yeneen ak yoo xamante ne nit ñi dañ koy faral di def ci frigo ah. paaka lañ koy bind hmm. wala dugal ci frigo noonu muy seddee noonu lay seddee am ci yeneen yoo seen rab moom moo koy def bu xafaari te faral di tee nit ba kàttanam wàññi ko ah. beneen bi ci des tamit maanaam mooy liggéey boobu ma la wax liggéey dina ko joxe eh, muy wàllu xala mais ci wàllu baatin mm-hmm. rab dina ko joxe hémorroïde tamit dana ko faral joxe maanaam siti bu yàgg aussi da koy joxe mm-hmm. moo tax euh, bu mu ci mënte am rek mm-hmm. moom bu dikkee insha allahu taala dinañ ko ci jàppale parce que bu dee wàllu kii moom lii moo ko tax a jóg ah, mu ngoog ñu bind ci xaw ma lan force la force mu la force kii moom euh, góor bu ko jël moom boo doon def trois minutes wala cinq minutes yàlla xam nañ di nga def quarante minutes oh. kon billaahil kitaab 40 minutes da nga ko def beneen bi ci des maanaam ñaar lañ ci am mhm. ñaar lañ ci am parce que dafa ci am boo xam si neexal guddi kasal am yoo si la bu euh, jox ci garab du yam ak bii mhm. parce que dafa ci am boo xam liquide la am boo xamante ni sunguf la hmm. moom nag euh, da nga koy jël maanaam da koy jël daañu la wax diire bi nga xam si ni ci nga koy jël mhm. balaa ngay balaa ngay sa soxna lem lay àndal ok lem lay àndal. boo hmm. jëlee j'espère que sunguf si amul benn effet secondaire. déedéet déedéet parce que man li liggéey samay garab lépp ku lekk. macha allah ku ñuy lekk la. Hmm. dama koy dama koy waat nee naa man ñeme naa état bi. Hmm. ñëw contrôler man li liggéey. loolu xool ba xam benn produit chimique dina ci am parce que dama koy faral di dégg ci bari man damay faral di bari. Euh, am ay nit yu koy wax naan dañuy dem sëriñ mu leen di jox ay produits yoo xam si ne day rax ay produits chimiques ma leen ñoo loolu ñàkk xam la parce que tubaab yi jëlee bu dee loo xam nga nag mu doon loo xam si ni len li da nga ko jàng len li nga donn ko mm-hmm. waaw ak yàlla di nga mën a xam garab bi ci mën a dimbali nit ki ba tawatam mën a faju waaye bu dul loolu nag da ngay wuti ay pexe rek te pexe moom yàggul mu ko waaw leer na acca kon am na solo kooku moo di saltige ndoy ci euh, euh, euh, ponk bi nga xam ne moom lañ tàmbalee mu di impuissance sexuelle rawatina ci ndaw ñi nga xam ne juróomi minutes yu mat sax mënuñ koo def mm-hmm. gis ngeen loolu mu leen won sàng biteel bi waaye rawatina sunguf bi bu doy waar mu ngi ko ciy def fexe leen ngeen mm-hmm. jokkook moom ndax numéro yi ñu ngi doon affiche suufu baar d'écran bi mm-hmm. ku ko contacté dina jëflanteek yow ba sa sedd guy acca dama ñëw ci rab rab ci boppam mooy xam nga mën naa ni rab moom Euh, yàlla moo ko bind bind naa ni mbindeefu yàlla boo xamante ni yàlla moo ko bind bind <laughs> daf ci am ci jinne yoo xamante ni dañuy faral di ànd ak doomu aadama bi ah. yii doon yoo xam si ni da koy doon ci cosaanam lay ma kan waaye ñun bu ci wàllu lébu moom xam nañ ñuy hmm. rab yooyu waaw ah, ah. di leen fàttali man mi di wax ak yéen la <laughs> beneen bi ci des tamit mën na koo jeex na mi ngoog mi ngoog bi ci des daf ci am hmm. ñoo xamante ni ñàkk euh, ñàkk kaaraange ak ñàkk a jug seen bopp dina tax bu ñu rombee rab bu saay-saay daf leen di faral di dugg <laughs> yooyu lay faral di jugee parce que bu ñu fàtte ni euh, la seytaane waxoon fa ba'ad dalika la aghwiyannahum ajma'in man dama koy di wax sama émission bi bari bu ñu jàpp rek ci wàllu diine hmm. parce que nit ki tey boo ko sonalee yaakaar lu mu yaakaar mu ah. di feebar day dem ba danaan est-ce que yàlla am na bu amoon du ma seetaanee moo tax li ci gën moom <laughs> mooy jug ci sa bopp balaa rab di la sonal waaye rab moom euh, lu fi yàgg la te it mbindeefu mbindeefu mbindeefu yàlla lañ mbindeefu yàlla lañ parce que boo xoolee euh, mën naa ne rab moom mooy jinne rek presque benn benn rab mooy jinne waaw soreewuñ soreewuñ parce que dafa am dañ naan chinois nii nii nit ku ñuul ki nii mm-hmm. neneen ak neneen mais soreewul mm-hmm. soreewul boo xoolee euh, ñun olof yi ñooy faral di di di wax rab ci benn côté am na it ah, mi ngoog mi parce que boo xoolee ñun rab dañ koy wax tamit rabu àll maanaam loo xam si daf la jaaxal ñu ni rab yooyu day mm. faral di am. Mm. mais boo xoolee euh, ci wàllu rab ak jinne man naa ni benn bi la. benn bi mais nag rab mooy faral di ëpp di dugg nit ak yooyu. Mm. boo xoolee am na ñoo xam si dañ naan euh, rab mooy shayatin ci arab. shayatin mooy jinne boo xam si day ànd ak shaytaan shayatin ni mën amee ci rab euh, ci jinne noonu la mën a amee ci nit. rab dina dugg nit bañ koy tooñ. fekk moom ku nit ku set la. Ah, wax naa ak sama émission bee. Mm-hmm. maanaam day faral di jël jëmm dem di ci rëbb rab yi ñoom dañuy faral di bëgg deret léegi nag dañuy jël jëmm nit ki dem di ci wut deret léegi nag nit ki bu tëddee guddi maanaam ki rab boobu di jàpp wala ki rab boobu di jël deretam nit ki lay gis maanaam ki rab bi jël jëmm moom lay gis bu xëyee mu tam ko fekk rab bi moom moo ko def moo tax rab lu bon la dina jàpp nit ba ba ba mu jàpp ni moom dañ koo liggéey maanaam fii ak toroxalul rek du la du la du la bàyyi boo xoolee dama koy faral di wax euh, maanaam damay dégg ñu naan ñi nga xamante ni dañ leen di tooñ ñoom ñooy maanaam ñu ñàkk la ñuy doon à chaque fois man leen waaw. waaw looloo ma jaaxal. ñu ñàkk lay doon xam nga tax. Mm-hmm. parce que des fois doon famille yoo xam si ne ay rab ñoo leen di topp bëgg leen a tuumaal am na nag am na ñoo xamante ni moom lu naturel la ci ñoom ñoom seen bët baaxul mais daf ci am ñoo xam si rab moo leen di topp pour yàqal leen léegi rab boobu moom mooy jël seen jëmm di ci rëbb te rab ku mu topp mënoo am dara rab moom ku topp bari na ci bopp mm-hmm. doo am dara léegi nag dañ naan famille yi nga xamante ni dañuy ñàkk rek lañ koy di fekk famille yooyu rab moo leen di topp yàqal leen hmm. parce que am na euh, maanaam euh, wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha hmm. wa gis nga bépp mbindeef boo gis am na wërsëg am na wërsëg moo tax boo gisee nit ki wërsëgam ni teg rek am na lu am na lu tax parce que yàlla lu mu dogal rek des fois day am lu koy sabab yàlla moom moo dogal lépp te lu ko neexul du am waaye nag day am loo moom moo koy faral di sabab moo tax li ci nekk rek mooy di mustu di aaru te it eh, di bañ a bàyyi damay faral di wax ne ñun gëmuñ dara ñun gëmuñ suñuy maam li fi maam yi bàyyi woon te fàtte nañ mm-hmm. beneen bi ci des aussi diine ji nga xamante ni buñ ko toppoon mm-hmm. dinañ mucc ci raba ci dañ ko bàyyi teg fële moo tax day doy waar mm-hmm. am na solo mm-hmm. ace kooku moo di santigandoo yi nee naa leen am na loo xam ne suñu borom nag ko ñàkk euh, jëflanteeg moom daal wóorut yéen ñi nga xam ne rab da leen a sonal fexe leen ngeen mos ko moom dina faj seen ajo ace sànq dégg naa ngay wax ba dugg nga ci biir mu di euh, feebar bi ñu naan hémorroïde te mu nit ñi fi ñu toll nii lan mm-hmm. ko leen ci baaxe waa hémorroïde boo xoolee ci bii moom moo ko tax a jóg dama koy faral di wax ah. kon hémorroïde nee naa képp ku la koy fajal mu dépassé une semaine gisoo résultat demal nga xool keneen bàyyi ko mu numéro it moom ku dikk incha allahu taala dama la koy garanti. Mhm. sept jours nga gis résultat. waaye dina gis bokk ci. Ah. te man yaakaar naa ñi ko jëfandikoo. Mhm. ñeneen a koy wedd waaye ñoom ñu ko xam nga faral di wax ni moom. Mhm. dooy moom neexee nga bañ a jëfandiku nga bañ a seq moom weddi ko. mais doo seq ak moom ba pare di ko yotti. leer dama koy assuré nit ku ñëw sept jours boo gisul résultat ñëwal ma delloo la sa xaalis. macha allah kon mu ngoog. acca yaakaar naa ne gis ngeen po boobu mu leen doon euh, wan sànq euh, am na tawféex yoo xam ne ñu ngi ci biir waaye nag euh, ni ma ko saa su nekk bàyyi leen waaj. nit mm-hmm. dara su la demee nga bëgg ko wala mu yitteel la rek fexeel nga jëflanteeg moom te xam naa ñi ko mos xam nañ ci dara lee am na lu ci nekk de. atia dama ñëw ci beneen ponk ñëw ci ñu bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, ñu bëri ñu koy def mais gënalu leen. Mm-hmm. nit koo xam ne day tox. ak kuy naan sàngara bëgg koo bàyyi fu nekk dem na fa. lan la ci salte gi ndooy man. dëgg la waaye xam nga tuux yenn saa yi nit def ko jàpp lu naturel la fekk du lu naturel. Hmm. des nit dinañ ko yàq ci cigarette parce que dama koy faral di wax sama émission lu bari nit dinañ ko liggéey ci summun bokkum xam yun fahum laa yarji'un liggéey ko ci léegi bu paree ci laalaa yooyu am na luñ ko ci dugalee ci turam ah. buñ paree dañ koy dugal ci buteelu sàngara juutal ko am luñ ko booleel yu muy àndal ah. paree ci bàmmeel lañ koy def da gis nit kooku ba ilaa yawmi diin du mas a bàyyi mukk sàngara am na ci ñeneen ñoo xamante ni dañ koy def ci guy gu mag am si ni fii guy gi ak reenam tàqalikowul kooku tàqalikoo sàngara yooyu yëpp nit ñaa ngi koy faral di def beneen bi ci mhm. faral di def day faral di def maanaam ah. di day xërtal kay def xërtal day mel lu mel ni euh, was-was xannaas lay di xërtal nit ki fu mu toll da ngay gis si ni buñ tuxul duñ am jàmm xam ñoom si ni buñ tuxee ba pare dañ koy réccu wala buñ naanee pare dañ koy réccu mhm. réccu noonu it la amee ci ñi nga xamante ni dañuy fooye seen bopp ñett yooyu yëpp mën naa ni ñun dañ koy traité fii maanaam bu dee ki nga xamante ni day tux wala muy naan mhm. liñ lay jox poudre da nga koy jël ndox mu tàng nga koy booleel boo ko naanee quinze minutes après da ngay commencé di ngeen baal ma ci tur bi wàccu mm-hmm. day dem ba xet bi bu la xeeñee da ngay wàccu kooku moom mën naa ni allah bugguma cax sama bopp waaye billaahi liñ ci am ci résultat moom macha allah kenn xamul nu toll bari xam si doon daan nañ tox mm-hmm. wala ñuy def yooyu ci garab bi moom moo tax ñu bàyyi lool beneen bi ci des aussi bu dee ci wàllu baatin daf ci rax maanaam ki xam si dañ koo liggéey wala dara kooku am na xaatim buñ koy bindal mm-hmm. mu boole ko moom mu ko naan kooku bu dee wala muy naan. Mm-hmm. wala muy fooye boppam. wala sax ba ci ki xam si sax xale day sàcc. maanaam day sàcc wala muy def loo ci neexul jikko bu la neexul rek xaatim boobu bu commencé naan dina jub ba jaaxal. macha ko loolu daal moo ci nekk. acca kon loolu euh, tawfiix la ñoo bokk déggandoo ko mm-hmm. euh, am jafe-jafe yu mel noonu rek ndax li ma koy diis bëri na. boole naa leen ak moom fexe leen ngeen jëflanteeg moom numéro yi naqarewut a jot ñu ngi doon affiche suufu barre d'écran bi soo ko contacter rek dina jëflanteeg yow. ba mm-hmm. nga gis lii di tawfiix acca dama ñëw ci cat ni Kolof Njaay di waxee lay semmal wala mu topp la ba ci biir bàmmeel ci yaakaar yéen sëriñ si la ñaa xam nga euh, damay faral di wax ni yonent bi bu ba naan sama xeet bi lu ëpp ci ñoom wala boo xaajoon ñetti xaaj benn xaaj bi cat moo leen rey xam lu yéeme la ci ci diina dañ laan la alaxa nu xaqul mm-hmm. maanaam cat dëgg la lu am la yonent bi dëggal mm-hmm. yeneen li ci des sax man ngeen yonent bi dëggalu ko mm-hmm. waaye yonent moom du koy wax ci ngelaw waaw moom ayam too xam doonul koo xamante ni day wax ci ngelaw lu mu wax rek lu am la ah. moo tax bari na ci jamono ji ñuy faatu ci bari mm-hmm. cat moo leen rey te dañ koy xeeb te damay faral di wax ni cat mooy ndayu musiba yi ni sàngara doone ndayu bàkkaar yi mm-hmm. noonu la cat doone ndayu musiba yi cat bu nekkee ci yow rab jàpp la day yomb parce que damay faral di wax ni doomu aadama ni ko yàlla fonkee mm-hmm. wala xadd karam naa bani aadama xam naa fil bari wal bahri gis nga jinne doomu bu matee sëkk dara jàpp yabu waaye des fois cat moo lay moo lay teg benn faiblesse boo xam si jàpp la ba nit ki day feebar day feebar ci wàllu gàllaaj ci wàllu baatin mm-hmm. ba lu dikk dugg cat bu la jàppee ñu liggéey la mu jàpp la day yomb ah. maanaam yemul ci dara xam nga cat lu ñuy tënk mm-hmm. moom bu xasee ba dikk musiba bi mën na àgg fu ne dina rey dina feebar dina def lu ne mm-hmm. dina dofloo sax nit cat dina fekk sax ki dàqoon a jaamu yàlla ñu catu ko bam bam ba mu jël beneen yoon bi léegi nag li ci nekk moom mooy ñun cat dinañ ko traité ci làmmiñu béy ak benn xaatim boo si dañ la koy bindal. Ah. di ko sangoo ak mm-hmm. reenu ngeer ak xorom dinañ ko ci traité. Ah. waaw benn aaya boo dinañ ko liggéey tamit ci lay soxli fannam dinañ ko liggéey tamit ci ndoxu géej waaye bu dee ci wàllu béy bi. Ah. mu nga cat dañuy faral di wax ni aaru ci lu jafe la. dëgg la parce que xam nga lu tax sëriñ si di ko wax. Mm-hmm. donte nag lu nit mën a aarul. waaye lu jafe la parce que nit ñi lay catu yéen yéen a bokk fi ngeen dëkk <laughs> yéenay lekkandoo di naanandoo à chaque fois des fois sax mu doon noonu say mbokk lay doon ñi nga mm. moo tax ñuy faral di wax ni ci jafe na waaye euh, garab la garab la boo xamante ni nit ki war bu toogee ba mu yàgg ba garab gi sëq mu dagg mm. coor ko wàññiwaat ko taxawaat moo tax mag ñi dañ daan faral di yor butéelu cat yoo xam si mag ñi koo ci daan gis da yor butéelu cat mm. <laughs> mu demee toog weer wu ne mu sangu ñaari yoon wala ñetti yoon wala deux semaines yu ne mu sangu

comme moo koy faral di def. am na solo acca ku tardé rek jàppal ne moom la tardeel mu dee cat te suñu borom am na loo xam ne dénk na ko ci ndax ci ñetti fan rek mu defal la ci lii di eh, ñaan yoo xam ne di nga commencé di gis sa bopp acca ci sëy suñ ko waxee suñu xel dina jëm ci suñu eh, mbokki jigéen ñi nga xam ne dañoo taxaw. Mhm. wala ñu dem ba benn sax pour ñu amati beneen problème lay doon ñenn ñi jotuñ cee jaar. Mhm. waaw la waa xam nga loolu it li koy waral day day day bari. Mhm. li ci gën nag mooy nit ki ñëw ñu mën ko xoolal parce que des fois tabaxa sax yu bokkul. Mhm. des fois dina faral di waral lool parce que nit ki euh, tabaxam des fois dina doon euh, dina doon safara. Mhm. ak ndox. waaw des fois tabaxa bi doon loo xamante ni ngelaw wala suuf wala yu demee noonu nga xam si tabaxa bi. Mhm. maanaam jubluwul pour njaboot mën ce am yooyu day faral di am beneen bi ci des rab dina ko def liggéey dina ko def parce que am na xam si ni mën naa ni jinne sax day kànnaare biiru nga ne ma. jinne day faral di kànnaare biir nit am na ci loo xamante ni tamit sëriñ si dañ koy faral di liggéey nga xam si ci bu ñuul lañ koy liggéey. Hmm. béy bu ñuul koy faral di liggéey bu paree am na fu ñu koy suuf ñii dañ koy faral di def ci sele ba yoon parce que boobaa ci mbàq bi lañuy soxla am luñ ci liggéey. nga am si nit ki. Hmm. ala kulli leen doom moom bu mu ko xalaat am ñoo xam tamit dañ koy liggéey ci butéel am luñ ko booleel buñ paree butéel bi dañ koy dëpp. ñii di ko def ci jaañ ñu jànj bi wooyee noonu lay biiram di wooyee maanaam doom moom bul xalaat mu am ko ci xam nga na seen mbokk yëpp ñu ngi def musiba li ngeen di def lu baax it yéen a ngi def lu. waa xam nga waa sëriñ <laughs> xam nga dama koy faral di wax man dama naa leen. bu euh, milieu sëriñ moo yàqu. Ah. société bi moo te sëriñ si ci <laughs> société bi la ñuy génn. Mm-hmm, mm-hmm. moo tax yàlla lu mu bind ñaar ñaar la ci bind. ñaar lu wér. da ciy bind ku baax am ku bon. Mm-hmm. man am na xaritu sëriñ boo am seen dama ko daan yedd bu ma ko daan yedd xam lu mu may wax ah. bu bu ma nit fayee xaalis lu mu bëgg dama koy defal ma ne ko nag di nga mos a toog bis yëkkati sa loxo sax doo ko mën parce que nit war na moytu di def yenn yu bon yi. Mm-hmm. damay toog ba mu yàgg naan yenn sëriñ si est-ce que ñoom ay jullit lañ. Mm-hmm. sax gëm nañ dara. Mm-hmm. wala dinañ xalaat ëllëg. parce na loo si ne daray àdduna jaru. nit ñi moom buñ la dee def loolu bon daañ la proposé alal june. alal june mën nañ laa fay ay million ci yàq nit wala pour nit du fi amee doom yu demee noonu. waaye nag yow yaa xool ci sa borom. Ah. waaye bu dee ci ah. am na ci benn mala buñ koy liggéey. na ci benn mala boo xam ne am na lu ñuy jël ci moom buñ ko waxoon nag euh, nit ñi mm-hmm. dem traité ko wala yu demee mm-hmm. moo tax dañuy tënk rek ah, waaw xam ne ci mala boo xam ne dañ mm-hmm. koy jël moom am na lu ñu ko booleel buñ ko joxee jigéen bu soobee yàlla trois mois incha allah taala am dina am résultat am na ci yeneen yoo xamante ni bu dee wàllu rab dañ koy defal traitement rab bi ba rab bi dañ bu dee dañ koo liggéey tamit dañ koy defal toj bu dee liggéey bi moom buñ ko defee guy ga moom di gént ki la ko def ñu takk ko ci guy gi wala boo dikkee di nga ko fekk mu feebar parce que loolu en général bu ñu fa yóbboo nit rek pour fayu la pour nit ki ko def liggéey mën a dellu ci moom am na solo jërëjëf Saltigué Ndoye sama mbokki jigéen ñi yéen ñi am euh, jafe-jafe am tout tànk fexe leen ngeen jëflanteeg moom fan yu néew rek di ngeen ci gis lii di résultat aca am na fu ma waroon tàmbalee sax waaye yàqu ci dara ba pare mu di mm-hmm. euh, lii di listixaar bu doy war bi nga xam ne yaa ngi koy def te kenn mm-hmm. xam nga listixaar man nee naa man yooyu dama ko dama ko maanaam dama macha dama ko teel a def man mën naa ni bi may jàng sax man maa ngi def ay listixaar mm-hmm. maa ngi ñaanal ñii ma jege lool parce que listixaar yi ci yor bari na man damay faral di listixaar ci kurus bu ma yoroon kurus kase ah. ma nit nee xoolal ma xoolal ko man ko wax lan mooy problème am man ko wax yan mooy sarax man ko wax leneen waaye nag daf ci am beneen boo xamante ni lii waral ñu koy def daa mhm. bu critique lay doon ah. soit ñu liggéey nit suul ko fenn mhm. mu bëgg a xam exactement fañ ko suul donc naa ngi saa boobu day doon lom si day cher parce que nit ki am si ne ay nit yu bari dañ koo soxla ah. nga bëgg mu fanaan la di la defal kii bi des fois day faral di cher waaw ah. léegi nag daf ci am boo xam si ne ci xaatim lañ koy def mhm. koy liggéey ci yaa xabiir faral di liggéey ci ci kii boobu yaa xabiir <laughs> benn aaya alquran qul huwa allahu ahad nga xam si ñu ci lañ koy liggéey buñ tëddee incha allah dañuy gis li ñuy gis comme kuy seetaan sa télé beneen bi ci des dañ koy liggéey ci course am na ci seet boo xam si dañ koy def ci sondel te yii la wax nii mhm. amu ci benn boo xamante ni nit mën na taxaw ne nii ndóoy mi maa ko jàngal day doon yoo xamante ni yàlla mooy yebal ay mbindeefam ñu jàngal ñu ci noonu lañ koy xamee kon leer na aja am na solo damay ñëw ci beneen ponk xam naa ci laay jeexale laata muy dugg ci xew-xew jamono mu di hmm. cas d'actualité ci kànnaar bi laay ñëw su ma nee kànnaar bi nag bëri na waaye j'espère que kii may dalal nii kànnaar bi am na loo xam ne mu ngi ciy def mbiri doy waar mu di ay résultats ñu ñëw ci kànnaar bi sant xam nga kànnaar mën naa ni bari na waaye bokkul hmm. kànnaar bi moom na ma yàlla baal waaye fi mu toll sax hmm. maanaam commande la bokk sa kànnaar yam sin dañ nit ki da ciy liggéey yu bari boo xoolee man mii lay waxal mhm. bu ci nit bëggoon nii nii nii nii nii trois kànnaar mhm. lu muy commande lay doon waaye man mënu ma koo mënu ma koo jox léegi nii ndax doonul loo xam si mën naa ko liggéey léegi ñi ko jëloon bee jàll ñoom xam nañ ñi ko jëloon ci émission bu jàll mhm. ñoom xaw ma kan waaye ñoom moom xam nañ la xew donte nag man damay bëgg ku koy jox ba pare di ko xoolal bu ma la wóorul dama lay xoolal parce que même boo leen joxee canal yi rek mën nañoo def musib parce que bu doon loo am note boo xam sin ci nit la waaye ko xam sin boo xasee ba am mën nga am ci nit ki mm-hmm. moo tax daal canal bi du ñëpp lañ koy jox donte ne nag moom lu efficace la ndax dañ lay wax liñ lay wax rek nga tijji <laughs> am loo ci jat boo paree nga tëj ñaan si soxla ci kii bi kooku moom ala kulli bu doon ay milliards da la koy jox. waaw kon mm. euh, du doon ay milliards da la koy jox xam naa sama mbokki ndawet ñeeg sant jàll moom xaalis da leen a tiital dinañ la sonal léegi ci <laughs> woote appel atia ma ñëw ci carte d'actualité acca ñu dox ba léegi wéyal fi ñuy jeexale ci cas d'actualité lay doon ni ma ko waxee saa su nekk mm-hmm. waxoon naa suma biir intro acca mm-hmm. euh, saltige mm-hmm. dëkk bi metti na fi mu ne nii rey bi lan ngeen lan ngeen ci ñu ci jàppale waa xam nga porteur de ay kilifa ngeen dëgg la na dëgg la waa xam nga dama koy faral di wax dama naan doomu aadama li jiitu ci moom mooy yar parce que doomu aadama suñ ko yarul day dem ba day dugg ci su mara danaaw asfala safi maanaam day dem ba na ma yàlla baal bàyyi ma sax moo koy gën <laughs> parce que bàyyi ma yàlla moo ko bindee loolu waaye nit ki dem ba di def yenn yi dangay dem ba yow da nga naan kii foo koy classé. Ah. nit nga koy def wala bàyyi moo tax damay faral di wax ni bu ñu nee peine de mort euh, demee noonu mais nit am na yooyu def. Mhm. a ngay da ngay génnee sa bopp ci ci ci ci ci ci ci ci nit. Ah. kooku moom mënatuñ laa jox benn droit. Mhm. Mhm. amatoo droit de l'homme. Ah. man moom damay faral di wax ne nit ki bu mënee def yenn yi. amatul droit de l'homme moom bu mu ko waxati. beneen bi ci des jàpp ma ni nit war na ñàkk fayda genn ñàkk fayda goo xamante ni yow. maanaam nga doon responsable. Mhm. benn waaye boo xamante ni na ma yàlla baal tekkiwul daal ngay xoole juboo mhm. sa bopp. ba mu lay rey aaro kaaraange wutal tul wutal door de door de wutal sax yoo xamante ni da nga koy def nit mhm. bu la kiyee nga yàq loxo ba ilaa yow mi nit <laughs> waroo bàyyi sa bopp noonu. parce que responsable nga xëy na du sax rey giñ lay rey mais xoolal sa njaboot waaw ñu tumuraange moo tax nit war nga foo toll di wut kaaraange di wut tull tullu fetal mhm. tullu tullu jaasi paaka yooyu yëpp wut ko pare jamono ji ñu toll nit nee naa boo liggéeyee bu doon téeméere jëlal deux nga def sa bopp nga def sa bopp moo tax nañu faral di di di moytu bàyyi sa bopp xam ñoom si ñoom dara garaawu ci ñoom mhm. Mhm. dara dara te euh, damay faral di wax ni maanaam Euh, lii sëñ Cheikh doon wax loo yàlla du ko seetaan rek seetaan lu ko raw dañ ciy gis ñoo am ci loo rek ñu yàlla dogal rek noonu yàlla mooy dogal waaye doomu aadama da ngay yàlla yàlla day satoo ah, ko wala jaa di waxee am na solo acca dama naan euh, sànq comme ni ma ko waxee woon nga ne lan nga gis ci réew mi lan nga leen di baaxee waaw xam nga euh, réew mi moom maanaam di faral di wax rek maanaam lu génnee sarax hmm. képp koo xamante ni daal mën na ko doon naa ko fi wax jamono yee saraxu ceeb bi ko ko man ah. nga natt ko ci at nga génnee ko bu fekkente ni mënoo ko nga wut onze kilos nga génnee ko mhm. waaye boo ko manee nga nat ko say say say say at mhm. nga génnee ko sarax baax na ci loolu moom boo ko defee tayit doonul koo xamante ni saraxu tay yàq tabaxa wala yu demee noonu mhm. daf ci sarax yoo xamante ni maanaam mën naa ni tabaxa bu ne mën na ko def parce que du doonul bu la yàqal bokkut ak saraxu ndox bi ñuy wax nga xam si ni kii mën na ko def mu dimbali ko kii def ko mu fay ko parce que bu dee saraxu ndox ñi mi ci ñoom mooy ñi nga xamante ni seen tabaxam suuf la wala seen tabaxam ndox la wala yu demee noonu mais ki nga xam seen tabaxam safara tey bu génnee saraxu ndox da koy fay ndox day fay day fay safara mais mën nga génnee ko ñaan ci yàlla euh, mhm. ko mën nga jënd ko ñetti minutes nga génnee musal la ci lépp loo xamante ni day day day day lore parce que euh, doomu aadama da ngay jub sa bopp da ngay jub sa bopp parce que sarax day faj day fanq mhm. day fanq ku ko mën aussi tamit nga wut pusa nga génne ko jàng ci yaa daafin cent cinquante quatre pusa lay doon hmm. benn mu nekk nga jàng ci yaa daafin hmm. nga génne ko ñaan ci yàlla musal la ci lépp loo xam ne seen luy looral sarax boobu moom waxuma la dara waaye koo génnee nit sax bu la jéemaloon ci boppam lay dellu te noonu pusa yi di noonu la koy jamee hmm. acca <laughs> mu ngoog euh, ñu amoon euh, saltige Ndoye jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf mm-hmm. ci leeral yi mm-hmm. euh, am na solo ci yooyu nga xam ne yaa ngi ko doon maye nit ki moom amoo dara lu sa xam-xam wala mm-hmm. li nga xam ne sa am am la am nañ kontaan ak mbégte dalal la waaye dañ lay bàyyi nga tàggatoo ba yeneen jamono incha allah waaye xanaa di leen jaajëfal rek di leen jaajëfal di ñaan yàlla seen site bi yàlla gën koo yëkkati yàlla yëkkati def ci taw tawfeex def ci xéewal saawaan baawaan yàlla defal ñu jàmm suñu réew te yàlla musal ñu ci lépp loo xamante ni luy lore la yàlla musal ñu ci nit ak jinne ak lépp loo xamante ni luy lore di wax wasalaatu wasalaam ala rasulillah hmm. jërë ngeen jëf